moo ko jaay groupe waa Bell yi ñaar moo ko jaay ak Aliou Samb non moom yoo xam ne tey tey tey tey tey wax ak yàlla non dama wax mais kii wax na man maay wax. gis ragal ci man man man yow waaye lépp Aliou Samb bu wax man bi ma ñëwee dama ñëw woo comme nii laa woo Amadou Ndiaye ni ko rotation yi mu demee.

vieux vieux mu naan vieux comment dire